asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 26 août 2020 ñu wax njëglikaay yi suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi soo bëggee dégg dëgg daal tey fa mu génn fenn la Gris Bordeaux la ñu woon ci xëtam mu njëkk mu ànd ak Tapha Gueye mu mel ni boobu la koy jox gàllaaj wala mu koy saxal protestant ko ci aw photo waaye li am ba des daal yëglikaay nag la ko tax di wax nee na ki nga xam ne nii daal moom moo di Gris Bordeaux combat bi nga xam ne nii jël na ko mu war a dox ci digganteem ak Balla Gaye numéro 2 Tapha Gueye moom Gris da ko caa génn ba mu set ca wecc maanaam daal yëgul géntul mu mel ni ki daal loolu la ñu ibakan tey gi xamal ci yëglikaay bi di sunu làmb ne nag suur suba moom fu leer naññ nañ la ko jëlee mel ni kon daal mbir moomu bu ñu sàgganee day dana indi ay jafe-jafe fa nga xam ne nii moom moo di biir écurie Fass ndax nag combat ki nga xam ne mooy directeur technique u écurie ba di Tapha Guèye Gris Bordeaux na combat ba te yëgalu ko ko yëglikaay baa xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom combat ba mu jël ñëpp yëg nañ ko muy Boy Niang mi war a bëri ak Tapha Tine boo bëggee dégg dëgg sunu làmb ne na daal li am ba des la nga xam ne nii moom la Boy Niang yor ci ay arme wala ay ngànnaay yoo xam ne nii moom la war a gañe Tapha Tine yëglikaay ba xëy na tey limbal ñu ko ko benn par benn maanaam daal wàllum tacticien Boy Niang am na ko physique tamit boo xam ne nii nekk na ci moom loo xam ne daam wala boog physique d'éléphant sax la ko yëg li kaay bi tudde maanaam daal physique ku ñay la Boy yor ak itam courage su maanaam daal yor na njàmbaaru gaynde nee na yii nag mu ay armam yu leer nañ yoo xam ne daal moom la Boy Niang boole te yooyu ku ko boole war naa mën a xalaat daan tafaatin yëglikaay bi moo xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne nii yëglikaay ba mu nga ca di wax muy Malick Ñing mi nga xam ne moom moo jiite xam sa cosaan moom nag daal la mu xëy di xamle ne na CNG bi nga xam ne moo fi nekk yore làmb ji tey balin saar demee jàpp na ne kii ñëw moom war na nekk président boo xam ne ni daal maanaam niveau wala capacité war na caa boole di déglu nit ñi maanaam daal di déglu bu baax a baax a baax li nga xam ne moo di ay doléances yoo xam ne dañ ko koy wax wala mettit ya ne na kii ñëwaat daal war na boole ci loolu ab liggéeyam leneen loo xam ne wala bu ñu continuer ba tey ci mbirum Alioune Sarr moom yëglikaay bi ñëw na daal daa mel ni Matar ba ba tey mu ngi cay gën a indi ak la mu yëglikaay bi xëy tey wax nu ko keneen koo xam ne ni moom tey yëglikaay bi ñëw na ci moom mu wax fa lu leer muy jibal Touré ma nga xam ne moo tëgg xoyantaan ak nga xam ne moo di Double Tyson promoteur u Gambie ba nag moom ñëw na bu a baax ci diggante ñaari réew yi moo xam la wala ak itam li nga xam ne nii ca la yëngu moom doomi Gambie la boo xam ne Serekunda la juddoo di yëmutu ci mbirum jaayum oto ak yu mel ne kii noonu daal màllum import export yëglikaay bi ñëw na ca tey dalal ko mu ngay xam ne nag nee na li am ba des daal promoteur boo xam ne dangaa tëgg lamb dépendre loo xam ne nii ci loolu kese kese nga dépendre jàpp na ne moom booy boo toog te xam ne doo ca génn jibal yemu ca de état bi tamit ndax dana leen jàppale ca gàmbi ci wàllum làmb ji jibal ne na waaw daf leen di jàppale waaye nag nekkul ne day yëkkati xaalis jox leen ko loxo ak loxo la muy def kay mooy société nekk ca dëkk ba lay wax ñu jàppale leen loolu mooy waxi tey jibal Touré mel ni ki nag waxtaan wu yaatoo yaat daal seq na ko Abdoulaye Diagne ma nga ne mooy correspondant wu ñi nga xam ñoo di waa sunu làmb ca ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi maanaam ca kaw la ñu xawee ko daanu jël bu méttee métti ci suuf muy école Bosco Sow ba ca jàmm gën yëglikaay a la ñu am ak fukki défaite ak ñett maanaam sept victoire treize défaite lii la ñu def ak benn match si li farus bi na ca mbedd ya daal la maanaam combat sax dëkkoota su njata moom niil la leen andil du buy tey seen itam daa mel ni est dañ ko xaw di moytu ka nga xam ne nag moom moo di Aliou Sylla mu moom daa mel ni moom mooy avenir école ba yëglikaay bi ñëw na ci moom góor gi si jëng tamit daa mel ni moom itam gisee su ko ki nga xam ne te moom dañ koo kawate yëglikaay baa xëy wax nu ko mel ni ki nag Lamine Ndiaye ma nga xam ne mooy secrétaire général lu écrit ba moom nee na am ba des daal jël lañu daanu nee na ñoom dañoo xawee koo ca kaw daanu bu baax a baax a baax loolu la xëy wax ba tey bu ñu continuer dem ca tuuti yëglikaay bi di sunu làmb ki nga xam ne mooy sam production maanaam Sambay Fall moom daal fi mu nekk nii moom ak noppi daal la jël féetewoo ko maanaam mu ngi ne cel jàpp boppam toog ci ruqam ka noppiwul nag di wax di gën a leeral mooy Pape Thialis Faye ba tey ca tuuse la mu xëy xam le daal nee na moom combat ba nga xam ne nii mu ngi koy wax ci diggante garga ak ka nga xam ne moo di Sa Thiès Thialis daal la mu xam le ne li am ba des daal mooy ñaari mbër moom la wax waxoon ak ñoom ci contrat moral ba tey ñoom duñ ca jóg te bu soobee yàlla danañ finaliser combat ba ci lu yàggul dara dara dara loolu moom mooy ay waxam fa nga xam ne moo di ci yëglikaay ba dañ fay jóge dem fa nga xam ne moo di record record moom bi régli face tey la xëy dugg fa duggee nag dafa andi Mbaye Guèye premier tigre de Fass Tafa Guèye deuxième tigre de Fass Gris Bordeaux troisième tigre de Fass muy laajte nag kan moo ciy le maire ñetti ñii ku ci jiitu waaye daa mel ne ña wax ñëpp daal est-ce que du Tafa na ne wàllum technicité xam-xamu bëre ne na Mbaye Gueye mënul woon loolu donte nag Mbaye Gueye moom ku ne xamoon na na ka nga xam ne ma Tafa Gueye moom bokkul sax ak Mbaye Gueye waxatuma laa Gris Bordeaux ci xam-xamu bëre ne na ñoom ñaar ku ci nekk boo leen jëlee teg la Tafa Gueye mën na laa jàngal bëre ndax mu leen dàq bëre donte nag Mbaye gi jàpp na ne jàmbaar la gi itam la ko war mu nga ca na li am ba des na a bëre nee na Tapha du ci koo xam ne wax na ca mbir ma muy Max Mbargane ba Lamsaar la mu xëy ne moom tamit na kii di Mbaye Gueye daal moom la jàpp ne moom mooy jiitu wala boog moom moo dàq bëre waaye ka nga xam ne nag mooy Tapha Gueye daal daa mel ni kon moom la teg a max moom la gisa loo xam ne nii yëglikaay ba xëy na wax ci muy Mbaye Jacques Diop ma nga xam ne nag moom mooy wàllum communication ba ca ministère des sports mu nga xëy di xam ne daal nee na na leer nañ Alioune Sarr wala boog kirimataar ba préparé wul benn bu yoon sargalum Alioune Sarr loolu mbay sax moo xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni moom bilaam ren doxul muy Mamadou Ndiaye ci lit simple bi daal boo bëggee dégg-dëgg cent deux mille cinq cent la ca gagné ak wennoo nag mu mel ni ki nag saison renam bii moom soo bëggee dégg-dëgg moom dara dara doxu ca waaye yàgg maar fi doxatul ba ko fa nekkoon ne day dem moo di Barcelone Lionel Messi nag nee na day dem gars yi nañ ko toogal mu leen doy na préparé wul testé wul moom daal abaana la wax doy na Messi nee na lay dem kon ñi ma bàyyi woon Barça est dañu takk seeni saak ànd ak moom waaye ñu doon supporter Barcelone moom bu ñu yeboo toog waaye Messi moom loo ci mën a dégg yàgg maar takk nay dëbësam ak a mm-hmm. ki nga xam ne mooy sunu lam sunu dafa ñëw nag si diggante euh, Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moom mooy euh, Moustapha Gueye moom nee nag combat bi nga xam ni moom la war a bëre ak euh, Balla gay de euh, incha allah du si ànd ak ki nga xam ne mooy Moustapha Guèye parce que moom daal lu mu gis daal boo xëy na am na ay raison loo xam ne moom moo ko poussé ba nga xam ne nee na dafay zappé Moustapha Guèye préparé ko euh, ak ak ak ay mbokkam xëy na nee ñu nag loolu nag su amee face nag dina tas ñaar Babacar. waaw loolu day tàmmuñu woon ko di gis ndax yaakaar naa ne Gris Bordeaux fu mu woon nekk si làmb Tapha Guèye ngay gis ci côté am ba defe naa photo bi yëg liggéey bi indi defe naa ne nekk na kër Tafa Gueye ay weer ah nit ki nag nit ku ne booy def dara xam nga la tax nga koy def parce que ku ne xam nga sa bopp Ndeye Coumba Fall li tax tey bu fekkente ne noonu ñu ko waxee décision boobu la jël que ni combat bi du ci ànd ak Tafa Gueye da ci fas yéene ànd ak ñeneen ak ñeneen bu fekkente ne Gris moom moo jël boobu décision wala boog bu muy jël wala boog est du bu muy jël avance bi Tafa Gueye da ko yëgul loolu lépp lu mu ci mën a doon daal mooy day nekk loo xam ne nii bu amee dana indi problème loolu moom ñu wax ko ñu bañ ko wax su itam ay maga fa ne li am nag te ñu mën ko ci wax daal ñun lu ñu leen di dolli mooy tee ñoo waxtaan moo gën parce que ay nit bu ñu bokkee lu ñu mën ta xaajoo dañuy waxtaan te am na loo xam ne soo ko bëggee songu ndey kumba faal ah boo néewee dool dina sotti te dégg naa wala fi naan melentaan bu ñu dajaloo sax wat we mm-hmm. waaw te balaa nga koy xam nga dem ci xorondom Babacar est-ce que nii écurie bi demee est-ce que euh, comme li ñuy wax rek Fass est-ce tour bi rek moo fa nekk mais société bi si biir comme li nga ko wax rek sëb la euh, lu ko bëtt nga si biir parce que Fass tour ba moo fa nekk mais xool soo xoolee ba si biir remonter toujours euh, un peu le temps nga xool ñu fa jóge ñëpp ba si Boy Naar ba si ñoom Boy Naar sa démb la mais ba si ñoom nem si yàlla ñoom tubaabu jor ñoom ñëpp Fass instant bi daal lu ñu wax daal Fass defee nii tamit mën nañu wax rek nekk face problème je pense que nëpp lañu gën a soxla ko di toog di wax nga xam nga tas moom du ko wax parce li tax ma ne du ne tas na maanaam ab écrit la am ay kayit am président ak lépp am fa ay mbër nekk fa di bëri défendre couleur écrit bi kon du ne écrit bu tas la non non non tasul dafa fekk ne nag mbër yàgg na faa jóge te terewul exi di exister loolu defe naa Sénégal yëpp def nañ ko saabu mbër mën a jógale fa toll ci niveau bu ne mais terewul ñoom ñuy sàmm écrit muy exister te defe naa itam même bu doon tey Gris Bordeaux dafa jóge dégguñu loolu fenn nag wala leneen am itam yaakaaru ma ne écrit ba dafay jaare tas parce que yeneen xale nga fa yoo xam ne ni ci écrit ba la ñu compté écrit ba compté ci ñoom mais nag liñ ci mën a wax yëpp départ yaak li am solo daal mooy ay nit dañuy waxtaan yaa ngi dégg bu fekkente ne seeni xol da bëgg mu nekk benn ngeen di ut dara la am solo mooy balaa ngeen a jóg jëm ci la ngeen war a dem ngeen waxtaane ko ba pare ku ci ne xam fa sa morom toll la cay dëgg ñu samp ko la nga xam ne ni nag du dëgg ñu dindi ko sànni ko fële quoi. je pense que Balla Diouf wax na ko nee na suñu bëggee daan Balla Gaye il faut que Fass booloo nekk benn nekk benn say pour mën a daan ki nga xam ne moom may même a doon rek déggoo li ma la la ne ay nit xam Balla Gaye la moo xam euh, Sokocim la moo xam kuñ ci adversaire bu ñu am wax bëgg a bëri ak moom bëgg cee génn ak ndam lu leer naa nañ ah faw àndandoo am ànd nag ñëpp nag mënuñoo bokki xalaat waaye ku ne am nañ droit bàyyi la nga wax la nga xalaat buñ xub paree tënk la baax ñu doxee ko mm. waaw ki nga xam nag moom bëgg na am ndam lool si kaw Tapha mooy boy euh, boy boy ñaa ne ñu nag tacticien la physique maanaam euh, yaramu éléphant la am xom ni nga koy waxee nag euh, courage lion maanaam fitu génne am na ko loolu yëpp ñett yooyu yëpp su ko boolee daal am nañu yaakaar dina daan ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine waaw maanaam tacticien bi moom loo ci mën a dégg loolu am na ci Boy Niang moom ku ne gis na ni muy bëree euh, comme li yëg li wax tamit que ni am na kiwu kiwu ñay yooyu tamit am na maanaam physique ku physique ku ñay yaa ngi dégg macha allah ah la ñuy wax ak tamit nekk na mbër bi nga xam ne nii maanaam am na courage maanaam. Euh, njàmbaaru gaynde loolu lépp mën na nekk na ci moom parce que loolu tey moo ko indi fii mu nekk yooyu nag bu dajee ci moom yaakaar naa ne bu ko utiliser bés ba mën na ci am ndam waaye itam mën na ko utiliser adversaire am andil ko leen lu bokku dëgg loola mm. parce que ci làmb lañ jëm waaye loo ci mën a dégg daal li ma la mën a xamal daal moom combat Tapha Tine ak Boy Niang <laughs> xalaat naa ne bu ñu fi yàlla bàyyi ba corona bi jeex mooy nekk meilleur combat yi ci at mii ñu jëm bu mm. soobee suñu borom bu fekkente ne joxe nañ la am mm. waaw ah kon boog dañuy yónni yàgg boobu waaw incha allah rabbi Babacar nag suñu jógee nag fee nga xam ne moom mooy euh, Pikine nañu dem fi nga xam ne mooy bës ko Sow bës mhm. Bosco Sow moo nekk fan eh, jàmm gën si Kamba Mbaaw moo nekk jàmm gën si Kamba Mbaaw ne ñoom nañu nag si bilan yi nga xam ne suñu làmb commencé na ko depuis ay ay euh, weer ne ñu am na 7 victoires 13 défaites benn nul nee daal suux na suux bu metti comme gaal. moom <laughs> kay dañoo xaaweeku daanu bës ko soo fa la nekk ak ñoom suñu ak yeneen mbër yaa ngi ñoom fa la nekk ay waaw mu metti na trop ak benn nil mm-hmm. muy loo xam ne nii nag defe naa ne xawaar nañoo xolaat seen bopp liggéeyaat pour que saison bii di ñëw ñu mën a am amélioré pour mën a am lu gën a leer lii quoi. Mhm. waaw suñu jógee nag foofu nag nañ dem nag si Malick ñi ngi di président écurie xam sa cosaan moom lu mu gis daal nee prochain président bi nga xam ne moo war a jiital ki nga xam ne mooy CNG nee dafa war a am capacité d'écoute maanaam daal yaatal mun a déglu ñëpp. waaw loolu da am na ci solo ci njiit njiit daal day déglu ña mu jiite yaa ngi dégg parce tamit lu mënta xew mooy fa nga ne nit ñaa la fa teg. ci dogal suñu borom kon nag su amee comme ñoo la fa teg seeni euh, wax maanaam moo xam lu ñuy ñaxtu la moo xam da da dañoo am loo def ñu bég ca di la ko wax loolu lépp da nga ko war di nangu la wax rek fu waxtaan ñàkk fu ne ndey kumba fal coow mën na faa bëri ak réeru xol yu tàng mais bu waxtaan amee rek lépp mën naa leer te bu lépp leeree ku ne loo jàppoon mën nga koo bàyyi mm-hmm. suñ jógee nag fi nga xam ne mooy suñu lam nañ dem si record record nag dafa xëy nag def benn Tafa Gueye Gris Bordeaux mooy premier tigre deuxième tigre ak troisième tigre ñoom ñetti ñi kan moo si euh, dàq bëre ñoom nag euh, jën nañ nag ay technicien ki si mel ni Ambra lu ma gis nee na daal Tafa Gueye moo gën a technique ki nga xam ne mooy Max Mbargane bu di nekk directeur technique yu Lansar lu ma gis neena na Mbaye moom moo dàq bëre ki nga xam ne moom mooy euh, Moustapha Gueye Zallo nekkoon fas tamit nee na Tafa Gueye lu mu gis daal leen Tafa Gueye moo gën technique ñu jeexale ak Sourou Fall manager Ndakaaru nee na daal Tafa moo dàq bëre Mbaye Gueye waaw olof na li ñëpp wax yu dëgg kon daa mel ni loolu dafa mel ni Tafa Gueye dàq bëre parce que bu doon vote la moom moo koy gagné yaa ngi dégg kon yaakaar naa nag ci li ñu xam ñun parce que bëre Mbaye Gueye mën naa ne man tuuti laa ci seetaan te ay vidéo la sax yaa ngi dégg li ma gis nag ci côté boobu la ma ca am ak am ko ci li Tapha def ak li Gris doo def yaakaar naa wax dëgg yàlla ah technicité bëre moom defe naa Tapha yemu ci ak ñoom kon defe naa loolu ñooñu wax mooy li am rek waaye nag li am solo daal mooy ku ci ne ci ñoom ñett ñooñu ba nga ci tolloo wala bi nga def nga li nga war a def ndax Mbaye Guèye ñëpp ba mu bàyyee làmb Tapha Guèye tamit ñëw assuré loolu Gris Bordeaux tey nekk fa muy loo xam ne daal lu am am solo daal mm-hmm. mm-hmm. suñ jógee nag euh, si Jacques Diop nekk charge de communication di Matar Ba ministre des sports mm-hmm. moom nee na démb nañu am na benn journal bi noonu ni Matar Ba mi ngi préparé li nga xam ne mooy sargal bu rëy euh, Alioune Sarr si départ moom nag génn na nag di weddi loolu nee na Matar Ba préparé wul sargal. waaw benn préparé wul daal sargal euh, euh, Alioune Sarr waaw muy loo xam ne daal démb lañ ko jàng ci sunu làmb tey moom mu ñëw li ko leeral moom muy chargé de com bi ci ministère de sports Mbaye Jacques ah muy loo xam ne itam ak lu ci mën a xew moom ah, mbir mi daal a ngi noonu ah, ki nga xam ne moom mooy docteur Alioune Sarr nag bis bu yàlla defee mu bàyyi ko fi di dem ah même bu neexee ministre bi am na daal mhm. euh, benn quatre demi-finale moom la joué am si. Euh, cent deux mille cinq cent ak benn nag. bu ko ko compter compter daa mel ni aayoo ci de yow mi bi ngay jàng école daan nga aayaan nga ci compter nag laa doon ay calcul moom xaw ma si. dara dara ah, dara tax cent deux mille cinq cent yi rek mënoo ko tëb tuut nga am ak benn nag loolu day gënu. Eh, waaw loo ci mën a dégg daal ah non waraguma la nag loo ci <laughs> loo ci mën a dégg daal maama di li mu am bariwut waaw waaye nag loolu mooy àddinaat du saa yu bàyyi rëbbee rek jàpp mbët ndey Kumba Fall comme ni ñu koy waxee. déedéet des fois nga rëbb bi dem fekk fa ay jinax wala doo gis sax jinax kon na continuer at liggéey rek. <laughs> Babacar nag si kàddu yooyu leen di tàggoo leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Asta Diné chéri Khadija Diallo DG Brahma depuis Italie ak Parcelles nuyu Asek chéri Khoudia Seck depuis Italie nuyu Abdou Guèye Baye Fall jàmm gën papa Sita aussi maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam ne mooy euh, Soukeyna euh, Mbodj Soukeyna depuis Soukeyna Dieng ak ki nga xam ne mooy. Euh, jëmboori euh, Mbodj depuis Mauritanie maa ngi di nuyu Babacar aussi maa ngi jaale suñu xarit muy euh, Khoudia Seck di chéri à Seck depuis Italie moom moo ñàkk waajuram bu jigéen démb sa xombal mi ngi tudd mère Ndiaw mbay Euh, sunu maam la sax mu lañ ko tuddee moom moo nelaw démb mère njaw mbay voilà yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana depuis euh, xomb ko denc démb Babacar di ko jaale aussi Abbas Nooy mi xam ne waajuram bu jigéen aussi président écurie Fass waajuram bu jigéen démb laa si Bantamba waaw dafa gën àddina jaarale aussi Babacar waajuram Abbas ñu ko koy jaale Abbas Nooy président écurie Fass waajuram boobu yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana mhm. ku jë moom tamit ñu ngi koy jaale waajuram bu jigéen boobu mhm. di Adja Ndiaw Seck ah. Adja Ndiaw kon dëkk ca xombal kooku moom defe naa soriwu ma mm. di profité di nuyu di ko jaale waa xombal yépp parce bala maa dem ak yaay rek faw ma jaar xombal wàcc ndàngal ma doog a dem ak yaay kon maa ngi koy jaale képp kuy doomu xombal wala nga dëkk ci àll boobu di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy rek waaye tamit du ma mën a fàtte su ma soo xam ne samay kilifa lañ samay xarit ku mel ni maire Lat Mbengue docteur Macoumba Diouf encore une fois olof a ko wax xeru téeb sàkket da cay taru te nit ki bu la jàppee da koy jàpp te moom dafa ma jàpp te yàlla tax moo soxnaam ak ay doomam yëpp ak wàllat mbénge waa Saloum yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu tamit sama xarit suma maire commune maître Pape Sène moom tamit du ma ko mës ko yëpp rawatina sama village moo xam mbomboy la sama dëkk way jur bu jigéen ay <laughs> xam nga tàllenc ak daadak ak gaat ak njamaan dëkk yooyu yëpp ba mbel xaw ba ngay dem marché baafee waaw dëkk yooyu mënoo koo xam parce que dëkkoo kaw ga foofa maa fa dëkk maa dëkk ca kaw ga kon di nuyu kaw kaw yëpp ñëpp am na ay di nuyu tamit waa Mauritanie ñoom Asi Diagne du ma leen mën a fàtte di nuyu képp koo xam ne daal ñu ngi ñuy suivre Saliou Khoule tamit maa ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu sama xarit l'international Youssou Ndoye di nuyu yaayam di suma yaay soxna Penda Diawara mais di ñaanal ñëpp jàmm tuuti yaay Sarr moom maa ngi koy béggee damay sànni xeer ne sama nu yóbbante doo ko yeggale mais béggee naa leen yéen ñaanal ñëpp jàmm daal